maire suma xarit la moom suma mag la sama xarit la sama dëkkandoo la parce que ñoo bokkoon dëkk xayra alors du vidéo yi tàng gis nga xale soo ko daan yónni bëgg mu gaaw bu yéexee bu ñëwee noo koy def waaw yaa ko wax mais dóor boobu dóoroo ko pour mitital ko mais da nga koy jàngal rapidité ak efficacité ci lépp luñ ko sant man maire suma xarit la et puis du maire du Lahat Ka c'est pas la personne de Abdou Lahat Ka mais yàlla conseil municipal moom mooy la mairie c'est le conseil délibérant qui qui qui qui gère tout parce que le maire dañ koy day am xalaatam le conseil délibérant muy les conseillers am seen xalaat ñu daje dans un conseil muy le conseil municipal ñu décider bu ay manquement amee dëgg la moom moom moo nekk à la tête de la mairie mais am na ay collaborateurs moom aussi li muy nekk nekk ci bopp mairie bi il a ses collaborateurs ndax y a des commissions commission santé commission transport commission assainissement commission ass... Ah, éducation pour na citer que ces commissions la commission jeunesse aussi alors tey jii ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soo defoon sa liggéey yaakaar naa mairie bi du am problème du ma ne maire mais mairie bi mais kon tey jii ñoom seen équipe municipaux yi waroon nañu mën a engagé wàcc sur le terrain daaw inondé mais tey ñoom commission bi yor loolu dem taxaw waa quartier ba gis leen ñu waxtaan ak délégué de quartier bi waxtaan ak jeunes yi femmes ñu réfléchir quartier ba nan lañ fa mën a def pour mën a atténuer wu loolu ba du amaat heure bii waroon na fekk ñu romb loolu bu yàgg est-ce que def nañ ko xawma bi ci toppit éclairage public bi ñu saluer au passage Touba ca kanam def nañ liggéey bu am solo ci éclairage public bi mais tey jii waroon nañ leen gis à longueur de journée ci tali bi ci fu mu mënti doon ñuy nekkaat ci entretien lampe yi pour éclairage public bañ am problème mënoo nekk ci période pandémie am problème mu inondation am problème mu mm, électrification mais day gën a day gën a métital nit imagineel tey nit nekk ci nawet ba di ko waaj a génn moo xam mais jàngoro ji jaxasoo jaxasoog siburu xoolal lim mën a créer yàlla bu mu doon nag ka dal nekk ci zone boo xam ni ambulance bi ni mu mën a dawee rapidement jël nit ki ambulance bi du ko man yàlla bu mu doon loolu mais kon loolu mooy li may wax mais maire engagé wu na man xam naa waxtaan nañu. engagé wu mais liggéeyu. au fait du ma ni liggéeyu ñu ñu ngi liggéey mais dafa am ay blocage des fois xam nga des fois nag nit ñi aussi am benn interprétation ci nit ki gis nga nit doo am interprétation ci nit da ngay xool liggéeyam nga xool la ca am solo la ca amut solo mais diwkat noonu naa ko dama koy attaqué nu ma neex déedéet du noonu. mais moom it moom it la maire na am esprit d'ouverture di déglu nit ñi di waxtaan ak nit ñi pourquoi pas même di créer ay conseil de quartier chaque deux mois mu ànd ak son équipe ànd ak le sous-préfet ñu wàcc ci benn quartier. man maa ngi wax ak koo xam ni collaborateur am la di ko jox samay xalaat parce que nag man aussi dafa am nu ma yàlla bindee man dafa am nu ma yàlla bindee noonu ma yàlla bindee nag dama ciy sant yàlla ndax ñun ñëpp nous sommes des talibés te pare nañ pour joxe suñu expertise pour dëkk bi parce que sëñ Touba lañ yaakaar ndax suñuy waajur sëñ Touba lañ am te ku ci faatu Touba gi nga bëgg ñu denc la fi kon suñu expertise pare nañ pour joxe ko ndax li ñu xam bëri na mais Touba li problème bi mooy euh, Touba gépp benn maire yore ko est-ce que duñu réfléchir ci ay angle créer ay commune d'arrondissement comme ni mu amee ay police d'arrondissement ndax gis nga tey ndaamaatu gis nga ñaari pneu mais noonu ñu créer ay police ay ay police d' mais noonu la ñu war a créer ay commune d' ndax Touba dafa amoon statut village jóge ci statut village am statut communauté rurale jóge ci statut communauté rurale am statut commune mais tey Touba war na mérito statut de ville comme ñu naan la ville de Dakar la mairie de xalifa Sall ex après da ngay gis ay commune d' arrondissement yoo xam ne yu bëri ay Médina Dakar Plateau mais tey Touba àgg na foofu que ñu réfléchir xool ba xam dañuy def benn découpage administratif boo xam ni dañuy cartographie Touba la ñuy xoolaat xool ñan ñoo mën a ànd ñu defal leen commune d' arrondissement léegi nag ci biir commune d' boobu mais ñu xool ban commune d' arrondissement mooy gën a liggéey su boobaa la mairie de villa day existé waat ba nëga ni nga xam ni le conseil municipal bu mag bi dañ koy defee ji ca mairie ba mais kenn ku nekk zone ya nga nekkee nga nekk fa maire yow ak sa conseil municipal lii bu ñu ko defee jàpp naa ni problème yu bëri dana jeex ndax Touba doonatul une ville d'ailleurs dañ naan un pays dans un pays Touba est un pays dans un pays donc lii daal laa xalaat ni bu ñu ko defoon dana baax mais awma benn préjugé bu bon ci maire wala dara man bu ma deen wax rek ci ko dama naan la mairie te la mairie c'est vrai c'est le maire le conseil municipal l'administration de la mairie même les bonnes volontés font partie de la mairie kon donc ñun ñëpp ñoo war a xalaat pour liggéey man bi ñu ci mujjee waxtaan man ak moom du ma ni waxtaanuñu woon na ma ñu waxtaan ma expliquer ko sama xalaat mu nangul ma ko xam ni lii xalaat bu rafet la mu jëm ci dëkk bi par la suite gis nga li yàlla dogal pandémie bi am kenn talatu ko ñu koy remercier nag aussi parce que il a décaissé 200 millions pour appuyer les populations en terme de denrées alimentaire loolu it sant nañ ko ci gërëm ko ci. te koy ñaanal nag mu gën a am vision ci yu mel noonu le social le social waaw mais mais la président de la république sax dañ naan ko gënal la liggéey ça veut dire que mu ngi liggéey mais gënal la liggéey dafa am